moment retrait Macky Sall ban conséquence majeure lay indi. non bu dee globalement day indi apaisement parce que loolu la wax déjà ci discours bi ñëpp war nañu comprendre bi muy wax la patrie avant le parti lu mu gëmoon na te loolu la matérialisé donc ku nekk war nga mën a fi mu toll li tubaab di wax garder sa sérénité xam ne ki nga xam ne moom la ñuy fal sénégale yi koy fal kenn mënu koo fal am na nag ay règles yi nga xam ne ci la ñuy jaar loolu mooy sur le plan global ma ci mën a tirer. suñu ñun nag suñu wàlli coalition ñun am na ñu mu bett am na ñu mu bettul parce que aussi ñun dañuy def politique di analyser te ki nga xam ne daf la ne damaa jiital sama patrie balaa may def sama parti balaa may def sama coalition bu jëlee décision bu toll nii nga xam ne décision wu c'est historique en fait pour ce pays la ñun ay acteurs politiques la dinañ toog waxtaan xool bennoo lan mooy variante am na fa ay parti bennoo yu fi def congrès xam lu ñu mu lu ñu wax parti opposition je je cite le PIT il milite pour un candidat de Benno Bokk Yaakaar loolu moom mooy mooy résolution forte ngeen seen coalition te ci tànk yooyu lañ